عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق jëflante moom ci kenn baaxam gi ay jëfam yu baax amiin te lu baax rek lañ xam ci moom moom lañ dégg ci moom na yàlla jëlaat teg moom loolu desal barkeem ci njaboot gi moom daanaka daanaka tàggu na ñëpp waaw man téeréem bii rek yónnee na ma ko maatam bi nekkoon ci maat bi waaw ma jox ma ko matul ñaari weer waaw suñu wax waxtaan ci téléphone waaw dëgg nañ ko lëre ñu di beesal loolu tim ñu leen di barke ay ñaanam jëfam yu baax yàlla mottali mébétam seen loxo yàlla wattu njaboot bi yëpp dëppale seen xol barkeel leen barkeel xam-xam bi yokk seen am yokk seen man-man عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك وعاشق